Euh, ñu ci bëri si ñun nag euh, ci tweet bi am Madiambal Diagne defoon ci lañ ko yëgee mu mhm. xamle woon ni sax ci tweetam ba que ni dissout nañ gouvernement bi mhm. euh, aux environs de 18 heures te pratiquement ñu ngi ko yëg ay booru 19 heures ki 20 ak yu ni mel mhm. donc ginnaaw loolu mu jël Sidiki ba def ko li nga xamante ni moom moo di premier ministre ba sax ñu ngi jëm ci passation de service moom ak Amadou Ba ni ki altine donc ñu teg tamit gouvernement bu bees ku mel ni Mame Mbaye Niang jamono ji ñu jox ko dolli ko bokk sport ci li nga xamante moom moomee la yoroon mi tourisme ku mel ni Thérèse Faye ñu jëlaat commerce teg ci euh, dollil ko ko euh, jël ku mel ni Mouhamadou Makhtar sise def ko ministre de l'intérieur moo ñu mu wax organiser li nga xamante ni moom moo di élection yi mais dañoo seetlu ci gouvernement bi pratiquement tout récemment Euh, ñi amoon benn taxawaay bi am gis-gis bi ci Macky Sall ku mel ni le ministre Samba Sine ak ku ñoom Doudou Ka et autres mm-hmm. ñoom ñëpp out ñu dugal ñeneen yi am ñu ko gisee euh, wala bokk yow sa gis-gis lan moo nekk di xew ndax tey jii pourquoi ñu remarqué que ni pratiquement pro Amadou Ba yëpp dañoo génn euh, gouvernement bu bees bi ñu gis ci les pro Macky. waaw Penda laajte nga am solo bu ma fàtte laaj conseil constitutionnel ndax man ci loolu laa a a wax dañ ci ñëw loolu ci actualité la bokk waaw ci ñooñu laa gën a bëgg a wax Euh, président Macky Sall euh, ba mu fi nekkee ba tey defe naa démb la def gouvernement euh, bu baax soo meilleur gouvernement et c'est dommage il l'a mm-hmm. fait au moment de partir mm-hmm. bu dee déjà ci nombre bi dafa naa 3 33 la xaw ma 34 compressé na bu baax resserré bu baax a baax mm-hmm. ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps benn ñaareel bi il s'est entouré d'hommes et de femme valeureux euh, parce que loyaux te ay nit nag pend doyew ñu leen lu dul ñu xam kan mooy kan ak kan moo ma defaral lan soo meilleur gouvernement moo taxaw nii euh, ñi mu euh, dàq kenn rek moo ma ci metti muy Lat Diop Lat Diop sama sama mag la sama xarit la sama grand la euh, te euh, liggéeykat la jàmbaar la ku bëgg président Macky Sall la euh, te wax dëgg yàlla xam naa ne sport sax yéenewu ma ko woon man man département bu gën a fort laa ko yéene. Hmm. ndax LONASE gii mu jóge bërki démb lam fa def ma nga fa tege ba tey sport tamit il n'a pas le temps wane. li mu mënee ndax euh, sportif la bokk na ci fédération sénégalaise de football euh, Guédiawaye football club moo ko jiite euh, te nit ku baax la ku borom xol bu yaatu la. Mm-hmm. te jàmbaar la xam naa ne bu fa toogoon tuuti. Mm-hmm. sport boobu. Mm-hmm. il aurait fait des merveilles moom rek moo ma naqari ci ñëw mais ñeneen ñu jógee ñëpp wax dëgg yàlla. sama ngañ ñu nekku ci c'est bien fait pour eux. ay duduka ay sàmm waaw xamul parce que euh, dañoo baadoo la delluwaay yow xam nga président Macky Sall euh, moom rek penda mhm. euh, jàngat la ak yeete la ci Sénégal fi mu toll tey xam nga wax naa la sànq rek ci sama sama sama bës bu rëy bi di tuuru ne moo lay wan ni Sénégal bëggee lu bon waa Sénégal ñoo bëgg lu bon bëgg yu bëgg yu salte ak dugal baadoola ak goree yow ki la defaral dara tax ñu xam la tax yow nga am kër tax nga am oto tax boo génne ñu ni penn barge ngi ne kooku boo dee as gor ak lu mën a xew waroo ko ndawal waroo ko tuutil mais président Macky Sall ñu bëri si ñu mu àndal ñu mu créé actuellement dañ kaa jàppee euh, pour ñoom Macky waxuma sax nekkatul président de mais dee na yow Samba si keroog. choqué woo ci euh, dialogue national sama si nga xam tëjul fenn partem ba ñëm si yàlla demee la parti ba àndandoo ak moom dem Ibrahima seen moo ci doon démarré nag moom partem tojul ñu fañ j'ai beaucoup de des pour waaye PIT fan la lan la peese ci échiquier bi Macky Sall bu tënewu bu bu bu amuloon ngoru euh, man j'ai beaucoup d'affection pour le président Macky Sall je ne suis pas toujours d'accord avec lui je ne suis pas je même pas d'accord avec lui à à à trente pour cent mais nit ki nit ki moom a neex ay jëfam nag yaa à manger à boire waaye góor góorul na ba téye benn bokk yaakaar douze ans yi mu fi def ay pat yoo xam tekkiwuñu dara mu téyee leen boole leen ci wax ji sàmba si mii ba mu fi nekkee yëpp sañul la ah onk sañul onk bàyyi bañ ko ne mag bàyyi bañ ne Macky Sall day dem yow ngay ministre am di toog ak moom lay mercredi ci conseil euh, de ministre nga wayat di doyati yab ko yab gu doy na teg te boo yabee jàmbaar danga kaa fekk muy nelaw nga bàyyi ko ba mu toog devant public nga ose yab ko di ko di ko joxar bi koo xam ne yow def nga fi nangami at kenn mësul dégg sa baat sàmba si lan la fi def ci àddina lu mu fi toj ci Sénégal dara bu du woon Macky Sall du dégg euh, monsieur le ministre wala du sa dégg monsieur DG ba ba dégg monsieur le ministre yëpp Macky Sall waaye Macky Sall boo ko yebee guddi bu bu ba yeewu faj ko moom la faj ñi ñeneen ñëpp ñi nga xam ne. daal defante la. waaw te Macky Sall bu ma la defante du tey. mais li muy defante te. non xaaral ma ñëw ma penda xaaral ma ñëw lu am solo laay wax nii daan lu ma yitteel parce que fii sa émission bii la dernière fois fii laa waxee ne. Euh, Amadou Ba que je connais très bien mu xam ma tamit bu baax ñu xamante bu baax man ak Amadou Ba que euh, d'accord ma euh, ci ni muy def ni mu defee nañ ko na lañ ko tuumaal te te nangu cee wax nangu ko lijjanti presque ni mu fago phagocyté parti bi am ñu manqué ñu doyee di ñoo xam ne dañ ko jàppale si benn genre espèce de coup d'état ci biir parti bi hmm. léegi yow ñii nii ñëpp danga leen daan gis ñu toog te tey micro ak rajo yi créer beneen APR ci biir APR te borom APR deewagul et toujours le président ñuy màtt ci kaw di ëf ci suuf waaw bu doon ñaari minute sax Macky Sall bu doon suba lay dem sax ñee mu dàq leen bougé leen ci biti ba pare xam nga lu gën a garaaw mooy ñu nax seen boobu di fay seen xel naan waa dañuy dem si directeur de campagne pour jàppale Amadou Ba mu dem campagne Amadou Ba démissionné wul ndax bu bu doon bu doon man li ma gën a xeebee Amadou Ba penn ñun ay waalo waalo lañu waalo waalo laa waalo waalo kese nga as gor bu ñu tuumaalee ci penc dangay ngay weddi tuuma ci penc man ba ma ñëwee sànq. ñëw ma fi pour nit gëm ma wala ñàkk ma gëm j'en ai rien à foutre mois je n'ai de compte à rendre à personne j'en ai rien à cirer nit ñi gëmaw ñu gëm ñàkk ma gëm mais damaa ñëw pour xamal leen ñi ñi ñi ñi doon kontaan di jubilé ci sama yëf dafa ne maa ngi je suis ma xamal leen yéen a nekk à man maa ngi bond seen ko du périer mais Amadou Ba dañ kaa tuumaal lu rëy ci digg penc mi bu doon gor di kilifa am personnalité dëggal boppam ci saa si lay démissionné waaye dafa ko dafa toog ne pat. mais bu jàppee ni tuuma yooyu amul ak ay. waaw mais bu jàppee ni tuuma yooyu amul lu mu dindi mu mu mu mu àddu ci. am na ñoo xam dañ koy jàppee di tay waaw moom la waaw waaw Penda. lan moo koy waaw lan moo koy nekk ay détails lu gën a nekk ay détails lan moo gën bu dee détail rek lu a nekk détail euh, yow ngay premier ministre di candidat. majorité présidentielle ñu tabb la ñu ne yow yaa ger lenn ci waa conseil constitutionnel pour éliminer Karim Wade valider yi dugal sa yenn candidat yi sa waa parti seen bopp jóg ne dañ seta seen dara na loolu leer yow nga ne parti toog naa ne noonu élection ne nañ forcer élection yi loolu ku ànd ak yàlla kuy wax ak yàlla rek tax war nga xam ne yaa quelque chose de louche te te te xaaral penn te danga koy xeeb lii mooy firnde bi te penn danga koy xeeb maanaam danga jàpp xaaral loolu fi am nii non non daf loolu firndewul beneen bi mooy fii man mercredi boobu mercredi bu affaire Farba Ngom yi am mais mercredi boobu ñun euh, wax nañu ci ay audio yoo xam ne qu'on a attribué à Amadou Ba audio yooyu xam nga moo gën a gaaw yëfi Farba Ngom waaye déggoo kenn wax ci déggoo kenn diir ci te audio audio yooyu yaa ngi dégg kàddu yi si jib. man audio yi déglu ma ko mais seen. waaw yéen am yéen si. moom laa la xoola léegi gisoo kenn wax ci euh, xam nga sama bos bi bosu farba bi comme Sénégal dañoo bëgg lu ñaar te xëy na Amadou Ba dafa maa ëpp ay bàjjen ak ay nijaay ak ay xarit ay fans. Hmm. moo tax yëf yi kenn yëf yi demul kaw. waaw bosu moo ñëw nëbb yeneen. waaw ah, mais yow yow yow mu sell mi nekk nekk Cap Manuel du kenn fii laa jógee sa sa sa kër la dernière fois man la mi ngi si jàmm mi ngi si hôtel à la preuve du mi ngi takk na ñetteel. da dégg da nga dégg kenn wax ci. loolu dinañ ci ñëw da ngaa dégg kenn biriwu ci. loolu dinañ ci waaw est loolu du cas bu ñuy wax ay détails loolay détail loolu da nga dégg mu wax ci. loolay détail waxuñu ci léegi yooyu yëpp bu bu bu si boole doo am euh, amul ba toog toog toogaay boo xam ne pour man man ñu ñu bëri amul ba toogaay bu mu toog noonu ci biir ci biir gouvernement resté ba tey. Hmm. ci la ñàkkee ñu bari. ñu bëri ci la ñu xamee ne amul ba mii. dese na tuuti consistance. kon daal da nga bëgg wax ne ba mu waree démissionné moo yàgg dafa démissionné wu dañ kaa dàq. dàqaale ko képp koo xam ni da ngaa bàyyi woon Macky Sall dama ànd ak moom euh, wax nga sànq euh, ñi Macky Sall renforcé. Mm-hmm. Euh, ñi mu renforcé la war a renforcé. Macky ay nit yu mu wóor daal la dugal. waaw mais looloo jaaxal nit ñi. mais loolu sachant que ni deux mois rek moo ko dese. penn loolu warul jaaxal kenn déggoo ma ne Macky Sall même bu doon suba lay dem même doon deux secondes. daa war a woon ñii ne ko bu dul woon man du ngeen nekk te ñi mu renforcer ñooñu ba tey dafa tuuti am na si ñaar ñoo xam ne man président Macky Sall waroon na leen li mu leen jox sa kontaanu ma ci bien que nag euh, euh, sedd na xol tuuti waaye da des na mënoon naa pouvait mieux faire. Mame Mbaye Niang ak Thérèse Faye Diouf ñaar ñooñu ci li Macky Sall am ci nguur ñëpp ci gouvernement xam nga ñu ngi wax Farba Ngom ñoo déggoon li may waxante ak Mame Mbaye Niang dañuy bàyyi àddina Mame Mbaye xam muy sama mag di sama xarit di sama jeeg. waaye naroon na la après jaba jee si dugg xam nga man Farba mi chaque jour ñu reyante man ak moom man sama xarit yëpp dañuy reyante euh, man Mame ñu bokk ma na moom ay ay ay ay qualité yu bari mu bëgg Macky Sall sincèrement di taawu Marème fay Sall la première dame. di taawu madame fay Sall Mame Mbaye Niang utul dara ci politique bëggul dara lu dul bëgg Macky sàll bëgg képp ku takk ci Macky Sall Mame Mbaye Niang li Macky li fii di rëy yëpp man la Diop xamu fu mu dëkk waaye Mame Mbaye Niang këram day ñëw fekk ma fa ma toog ma commandé tànn tànn maay comme toog commandé ne lii laa bëgg añee lii laa bëgg ndékkee day ñëw fekk ma fa day dem bàyyi ma fa moo tax ma xam euh, euh, jabaram maa ko njëkk xam moom jabaram caamel ma koy nuyu bu baax sama jeeg dama noonu su du ma tudd tëram bu bañ dugguñu waaye dama xam mbay bu baax xam tamit taxawaay bi mu am ci Macky Sall gis nga ba mu mettee jamono yii nga xam ne Amadou Ba ci la commencé di di di dérouler bu Mame Mbaye Niang jógul woon Mame Mbaye Niang dafa sauver république bi waaw loolu loolu loolu du waxu fii Penda waaw déedéet du ma ci mosal waaye Mame Mbaye Niang dafa sauver république bi loolu ci kanam la lay ñu xëy na président Macky Sall dina mës a wax kan mooy Mame Mbaye man ma wax ko amul sens waaye Mame Mbaye Niang dafa sauver Sénégal dafa sauver euh, république bi xoolal non dafa sauver république rek ma xam xam naa fa foofu laa mën a yem ndax man duma wax kat te femme d'état laa xam lépp wax lépp baaxul waaye li ma wax damay ñaan Macky Sall bala mu fay jóge na wax Sénégal euh, keroog xale boobu nekk Sénégal Mohamed Diallo am na lu mu ko wax nee na ko lan nga yëg lu ñu yëgul donc mu ne ko du mënuma wax lépp mais Macky Sall damay ñaan yàlla bala mu fee jóge na wax waa Sénégal ci lan lañu ñu ak ban rôle la ci Mame Mbaye Niang joué ak ban rôle la ci Thérèse Faye joué ak man ñii ban rôle laa ci joué loolu Macky Sall moo ko mën a wax. yow mi man mii waaye léegi soo mënul wax déedéet man non du ma dugg oui mais soo dama lay wax rek na la mais soo ñu mënul révéler peut-être non révélé wu ma dara man ñeneen ñi ñeneen lu ñu wax mais yow yow xaaral ma wax la concerné na la yow mën nga wax penn xaaral ma wax la expliqué ñu tuuti penn xaaral ma wax la nga ci joué penn xaaral dama lay wax dara nga xam ko man du nit kuy révélé xam nga baatu révélé léegi la am sens

léegi fayu la xam naa loolu léegi euh, maso dama koy bàyyi révélation man je ne fais de révélation man daal li ma la mën a wax ten te yow duma la wax loo xamul ci man man ay combat de principe laay mëne ay combat de principe laay mëne mm-hmm. te duma duggantu duma defantu duma xeexantu yooyu nag ma am ñu ma ci bokkal ay yëf ñoo xam ne sama man pend yow xam nga ne sama jóg yombul ñaari kër laay fréquenté Thérèse Faye sama rak la mu jox ma cër mag rek la may woowee mu jox ma cër lool déggal ma lool teg ma place maa mbay di sama mag waaye Macky Sall de ñi ko wër ñépp bu amoon ñeneen ñaar ñu mel ne Mambay ñaar ñeneen ñaar ñu mel ne Thérèse fay toj fi moo tax ma ne ñaar ñooñu mu leen war a jox warul leen ko lim li ñu war a am ci Macky Sall amuñu ko ci heureusement ba loolu intéressé wu. Mambay xaaral xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw. quelque part aussi da xaw gëm.